Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. yéeno alfayda bég naa ci ñoom man su ma yeewoo subaay alfayda lay déglooy ci déggin bu leerooy information yu leer gis-gis bu leero oh, oh, waaw waaw waaw alfayda 90 point 1 kii lay dégloo waaw moom li may bégal alfayda FM rajo bi ci tund mu saalume man de sopp naa leen bëgg naa leen ndaxte bëgg naa doom yi bari jom lool te nangoo liggéey fonk seen réew bëgg seen tund àndandoo Alfayda doomi saa Saalum mënuñoo dem te ànduñoo ak seeni réew mënuñoo dem te ànduñoo ak Alfayda rajo bi xew ci jamono rajo bi xew ci réew mi ne rajo bi xew ci biir Saalum kontaan naa ci yéen. Alfayda, c'est la référence. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi tàmmu la 90 international dal leen ak jàmm ci xabaar yi bu ngeen taaxiloo tuuti rek ñu jukki leen di ci gën a fës delloo na njukkal askan wi Kaolack waaye itam delloo na ko njukkal moom xaritam di magam papa Jokal Gajaga mi ko dajale région Kaolack gi yëpp laata moo wutali këru diine yi xam ne itam ne liggéey dong moom moo ko dese baal na ñëpp moom Khalifa Babacar Sall mi fi doon amal tournée ni ki démb daa ay doomam mu jàngi li ko waral bokk na ci ragal dund l'accident ya ñu dundoon daaw ndax l'école yu sori seen bëgg-bëgg moo doon am ab l'école te seen bërëb boobee di terrain arène indépendance daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne DER délégation générale à l'entrepreneuriat rapide delluwaat nañu ca Kaffrine ngir fayeeku bor ba ñu lebaloon askan wa toll ci juróom téeméeri million ak juróom fukk ak juróom ñeent ña xam ne fayeeguñu ngir ñu dem fayi laataay daan di leen ci fekk daa ngeen ci dégg Mouhamed Wilane xabaaru bi ci réew daan ci ànd ak Serigne Moussa Kane li yëgle kaay xëyee tey jii mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon journalu laylatul katmiya ñeel guddik Cheikh Soxna Ngoné Ndiaye ren lan ci àndalaat journalu yoonu magal gi daan ci ànd ak Mamadou Moustapha Mbaye mbokk yi bu li lépp yembee xabaar yi daal di a ñu ñaanalante wala tal loolu ñu dikk ak yéen ci yàttal gi xaram fàcc gi gannaaw bàkk bi lay doon Le journal Ndeye Khady daal nag jàmm mbokk yi yéen itam fayda FM la 90 point 1 ngi day xabaar yu leex te kaddu gi di bàyyeeko fii ci ma meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Ali Momar Lo janoog man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg bi mën di leer di koddu sekk madame Keneme Khalifa Babacar Sall maire Ndakaaru ba woon doon itam ab nekkoon itam ab prisonnier ca Rebeuss amal na fi ab tournée ni ki euh, démb waaye itam wër këru dina yi ngir jaajëfal leen ci seen i ay ñaan sàkku itam ñaan ci ñoom ñu jagle leen ko nag tournée bu mucc ayib gi ba nit ña bëri woon lool rawatina mu àndoon ceeg Cheikh Tidiane Sarr. gannaaw ba mu génnee prison ci ab grâce boo xam ne président de la république Macky Sall may na ko ko moom Khalifa Ababacar Sall mu ngi wéy di amal tournée yi nga xam ni mu ngi koy jëmale ci këru diine yi bu ci mujj mooy diwaanu Kaolack mu nekkoon fi nag nikki démb wër bépp këru diine bokkoon na ci dem seeti église bi naka noonu dem ca Kaneen jaar Medina Baye dem na Niassène dem timit Touba Ndorong ba ci këru diine bi ñuy wax waa Ndemeen ñoom ñëpp mu seeti leen nag sàkku fa ñaan moom Khalifa Ababacar Sall àndoon nag délégation bu takko takku nga xam ne nemmeeku woon nañ ci Barthélémy Dias Cheikh Gueye maire bu Derklé waaye tamit Madiop Diop maire bu Grand Yoff nekk noonu Aïssatou Fall nekk ab responsable politique bu PS diwaanu Dakar ba ci Moussa Taye di conseil politique am Kani Bey maire bu Ndulo ak Babacar Diop ji di ADK Khalifa Ababacar Sall ne mu ngi sant yàlla bu baax a baax mi nga xam ne moo ko tegoon dogal bu nu mel. moo ma teg lii naan ko mu teggi ko ba pare ngay jéem di mere nit amul sens donc benn nit teguñu ko yàlla moo ñu ko teg loolu la ñu gëm moo tax du ñu mere kenn amal ñu kenn xeer ma yàlla ñu gërëm ñëpp sant ñëpp joxe ci yeneen boobu nga xam ne mu ngi ko doon amal fii ci diwaanu Kaolack jaarale ko ci permanence su Khalifa Sall bi nga xam ne moo nekk fii ci diwaan bi fi nga xam ne foofu la ñu tëjee tournée bi nu mel ci teewaayu militant yu bëree bëri jógee ko ci département bu Nioro wala Guinguinéo naka noonu bu diwaanu Kaolack lépp amee ci njiitalu Jokal Gajaga di seen coordonnateur xalifa Sall ne mu ngi gërëm bu baax a baax bépp militant moom xalifa Sall nag gërëm na bu baax a baax kilifa diine yi nga xam ne ñoo ko dalal te it ñaanal nañ ko bu baax a baax moom mi nga xam ne moo fi danoon maire bu dakaar ngir yàlla may ko jàmm ñaan ko timit mu baale comme ñi nga xam ne noonu la ko yonent yàlla Yusufa defee woon waaye timit yeneen leader yi nga xam ne yàlla jot na leen a teg ay nattu fii ci diwaanu Sénégal wàccee la sa wàccuwaay Cheikh Tidiane na mu ko defee moom Khalifa Babacar Sall gërëm ñépp gërëm magam itam di rakam di euh, xaritam euh, di Jokal euh, Gajaga waaye itam nee na di xam le li ko dese mooy liggéey muy jàll ci leneen te it nag baal na ñëpp ndax li ko dal ni kenn tegu ko ko ku mooy yàlla suñu borom Khalifa Babacar Sall ak Cheikh Tidiane Jokel Gadiaga mi nga xam ni moo dajale toute la région de Kaolack aujourd'hui pour ànd ak ñun ci activité bi nga xam ne du activité politique ñëwuñu fi tey pour politique dañu ñëwoon ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bi ñu yàlla tegee li mu ñu teg jéggi ko parce que ay wayjur kilifa ay xale ay mag ay ndaw ay jigéen ku nekk ca la nga xam ca la nga man ca la nga tolloo ñaan nga yàlla pour lii mu teggeek ñu commencé ko depuis dimanche passé di seet di nemmante ko suñu wayjur suñu kilifa yi nga xam ne bu nekk ci Sénégal suñuy xarit suñuy am di jàmm suñuy dëkkandoo def nañ leen seet li ñu ñëpp yabe li ñu ñëpp digal mooy li nga xam ne moom la ñu gëm ñun yàllaa ko defoon moo ko dindi jeex na bis ni tey loolu ma nga suñu ginnaaw fàtte nañ ko il n'y a de rancune il n'y de rancœur nous passons à l'avenir et nous avançons mu nekkoon Khalifa Babacar Sall Jokal Gajaga nag moom gërëm na ñëpp sant ñëpp ñi nga xam ne rek dugaloon nañ ci seen loxo waaye itam ñaan nañ ci ngir rekk mu génn ci kaso ba Jokal Gajaga mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Sarr. kon dañu leen di gërëm di la sant ñu ñu nga ne lii nit mënu a tax benn carte laa yore nga ñor benn carte amul ma mën te mënu leen ko amul ma xamu leen ko. ngeen doyloo ma dama kaay di coordonné gëm yàlla la ba yàlla tegi natt boobu natt dafa amoon ñu ne ci biti yor seen i kurus ñi dugg ci église bi di ko ñaanal pour yàlla génne ko ci yàlla génne na ko ci bam sa wecc mu ne nag léegi danaa ñëw Kaolack ñooñu ma doon ñaanal ma gërëm leen sant yi nga xam ne aussi ak sympathisant yi ak mouvement de soutien yi ak ñi nga xam ne bokku ci benn parti xalifa ñor ñëpp a ngi mu ne fokk mu jaar fi nuyu coono mooy ne départemental yi nga xam ne parce que département bu ci nekk am na ku fa jur ku ko tuddee day mel ni tudd nañ département bi yëpp kon département bi Guinguinéo suñu gërëmee sant Cheikh Mbacke Sow ni département Guinguinéo mel na ni léegi Nioro du yëpp Adama gi nit ñuy monsieur le maire suñ tuddee mel na ni département Nioro yëpp. tuuñal su loolu passé ñu nuyu mag ñi fi nekk troisième âge bi loolu jigéen ñi te kii di ko indi tey dañu dem seen parti politique nga xam ne léegi dañ naan région de Kaolack am ngeen une semaine mbaa am ngeen quatre jours mbaa am ngeen cinq jours su boobaa bu neexee yonent bi lu yomb dana dana tàng ndax xalifa ñu ko jaral nit ñee ko bëggal mi ngi noonu Khalifa ñu ko jaxel jokkeel gajaga ba tey jii di wax ne Khalifa Babacar Sall ba mu nekkee ci kaso ba nangu na ne li ko dal nattu la te dund na ko ak ngoxam ndaw ñi itam di rafetlu dalal gi ko askanu Kaolack dalal ñenn ñi di rafetlu discours ba nga xam ne yëkkati na ko ba noppi daal di koy dénk yàlla suñu borom ñu teewli seen i kàddu ci micro Cheikh Tidiane Sarr. tànk nemmeeku tànk gërmaate ndax yàlla dafa teg ko am nattu gëm nattu bi vivre ko ak dignité ak fulla ak fayda ak ngor ak jom kii ko kenn du moom ñetti at ñuy dem di ko seet di ko fekk ci situation mi nekk am na benn ba ñu def benn waay na xalifa mii am na lu mu xam te ñun xamuñ ko xanaa bon léegi turandooram ko dee lu ñu xam man ko lu tax mu ne boo ko fekkee ci kaso bi daa yaakaar ne mu nga biir këram ba léegi loolu mooy ngëm loolu mooy ful ak fayda ba ko yàlla jeexalee nag dafay jeex te fu mu demee loolu la fay wax sans ranke amul képp ko la ndax moom wóor na ko ne yàllaa ko fa yóbboon ba génn jotee yàlla génn na ko mu baxal ñëpp di santaat yàlla beneen yoon rek man Al Ousseynou Sy responsable des jeunes xalifistes de Kaolack di wax ne mbëgte bu rëy lañ am tey vraiment ak accueillir ko fii ci Kaolack Sénégal nga xam ne Kaolack dafa am lu marqué ci histoire politique Sénégal kon tey jii nii tey accueil bi vraiment visite bi am na réussite di wax ne incha allah rabbi yaakaar yaakaar nañ ne lii dina continuer. man la Cheikhou Mbaye dëkk Thiako Thiofior ci commune bu Ndiaffate macha allah nga xam ne tey def na visite de proximité dans toutes les familles religieuses yi nekk Kaolack muy ñu gis xalifa mu dal ku gëm yàlla lépp mu delloo ko ci yàlla discours am déglu nañ ko mais da nga xam ne kii homme d'état wala di wax leneen waaye bi mu ñëwee dafa xam ne nee na ndogal bi yàlla dong moo ko ko tegoon yàlla moo ko teg. man Mbaye Cissé laa tudd kaas naag laa dëkk. bëgg ci lool mbooleem fi mu demit dañ ko doon ñaanal ndax jullit ñaan mooy gàllaajam kon loolu lañ war a def bi mu génnee ñëpp ci sant yàlla xam na it li ci kanam na fàttali ci ginnaaw li ci kanam nag mi ngi ñëw incha allah dénk nañ ko yàlla mi nga xam ne moo mën a jot a dénk lépp. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 junjoon nañ leen ko ci bopp xabaar yi askan ba yeewoo ca Medina Mbab ña ngay sàkku nag ci kilifa yi ngeen ñu tabaxal leen ab l'école ca seen terrain arène indépendance ba lu ko may seeni doom du ñu jàng atam ren ji mbaa sax ñu bàyyi njàngum nasaraan bi te wutali daara yi Cheikh Tidiane Diagne. du ma ne abandonné la ñàkk foo jëm ak ñàkk jumukaay mënoo fayal sa doom mu dem jàngi jaaxle ñeel na ko moom waajuru ndog bi dëkk ca quartier Medina Mbaba ak ñaari xale yu mu téye ci loxo ndeyjoor ak càmmoñ tout tànk yooye moom jàngub école duñu ko def niki ren jile loolu moo nekk nekk ci seen xel waajur wi ndax jafe-jafe bu mu dund ci atam mi la ñu génn mu sooxe ay accident yoo xamante ne daloon na njabootam Thiébo Thiam ne njàngum nasaraan wi kay askanu Medina Mbaba 1 xañ nañu leen ko parce que su xale yi nekkul ci jàmm ñun nekkuñu ci jàmm suy xale yi di accidenté ñuy dem ak dikk tamit loolu du jàmm loolu liggéey fajee leen ko loolu tamit waajuru ndongo yi dañ si gën di sonn soo xoolee ñu bëri bëri bëri bëri bëri ñu ngi dugal seen doomi internat ñuy dugal seen doomi daara njàngum nasaraan bi sooxee na xool jalaj wala jógee fii dox ba tan ba wala jógee fii dox ba sàmm ñebe loolu métti na si ay ndaw li ñu mel li ko sooxee du lenn lu dul jafe-jafe yoo xamante waajuru ndongo yi dëkkee ca Médina Mbaba 1 ñu ngi koy dund bu ñu sukkandekoo nag ci borom kër gi le mu ne waa Médina Mbaba 1 moom kilifa yi dañu leen a fàtte làmb joojee di arène indépendance ñu koy sàkku ñu defal leen ko ab école élémentaire ndax yàgg na fi ci diir boo xamante ne kenn jëfandikoo wu ko parce que làmb benn école fii ndaw ñi nga xamante ñoo nekk Médina Mbaba gis njàng mi gën a yaatu alalu askan bi la alalu nguur gi la di gis-gisu ñi fi dëkkee waaye tamit dañoo am ndogal ci mim réew Ibrahima Thian secrétaire généralu association AJDM moo ko wax terrain bi dara nekk fi bind nañ iyaa autorité politique yi fi ñëw aussi tamit des dañu koy solliciter aussi naan leen vraiment suñu terrain bi suñu ko mënoon defal école dina baax mais jusqu'à présent waxaguñu si loolu ab gune gu toll ci ko lool lii lépp nag ci ndoddu kilifa yi lañu ko daldi tekk bu ñu sukkandekoo ci askan wi ndax école yi mënee suñu cey jotee te kenn dootul nangu sa doom di dem di accidenté bu weesoo jafe-jafe njàng mi askan wi dëkkee file tamit wax nañu ne Médina Mbaba 1 ci boppam amul poste de santé lii lépp nag ñu ngi koy sàkku Cheikh Tidiane Diagne tax na rek tiitaange dikkal leen ña ngay la ñuy ragal nag mooy seen i doom dundul accident ya ñu dundoon daaw ndax seen digg ak l'école yi sori na lool ña ngay sàkku nag ci gi ngir ñu bàyyi leen xel i bëgg-bëgg ceebu càmm di yeewoo mu ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. su école tijjee dañuy nekk ci jaaxle ndaxte xale yi nu ñuy demee école ba nu ñuy ñëwee suñu xel du dal parce que nga am benn xale bu ndaw 6 ans 7 ans 8 ans mu war a dox ba école jalañ wala nga jëlal ko Jakarta mu dem ba école jalañ wala mu dem di jégg tali bi dox ba biir ñuruux mooy Mbirna Mbaba 2 di jàng ji foofu wala mu dem ba Tabangoy école Samba Ñebe di jàng ji foofu noonu amaana yaakaar naa ne loolu lépp ay jaaxale lay doon mënoo leen a téye ci a dem mi ëllëg xale yi jàngee école jarañ ay sàmmañee ba ay tan ba duñ ñu dimbale ngir yàlla ak yërëntu bi ñu may ñu làmb ji ñu tabaxal ñu ko benn école élémentaire boo xamante ni après Médina Mbaba dina doonaat beneen yokkute boo xamante ni képp ki nga xamante ni yaa ngi ci nguur gi di yeewoo Kaolack amul xaaji amul seen jàppale population Médina Mbaba ñu am benn école élémentaire fu làmb ji nekkoon ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ko dagaan di leen ko ñaan fu ñuy taxaw tali mu ngi fi traversé jëm kër Seexu Njaay tali mu ngi traversé nii jëm kër madame la maire ñu naan Mariama Sarr xale yi côté bu nekk dañ koy génnee di jàng si te ñu si bëri dañuy jànge fii Samba te tali bii nii leen neex lañ fiy jaaree oto yi lu leen neex lañ fiy jaaree munoo tamit sa doom chaque jour bu jàngee sa fit du dal kun da nga ne dama koy dugal ci daara alxuraan wala mu dugal ko ci internat bu ma gën a jege parce boo doxee fii même pas un kilomètre gis internat tey kooku day jéggi canal bi dem si internat bi loolu noonu moo waral ndongo yu bëri seen njàng sooxee parce que xale yi bëgg nañ jàngum français bi ndax lu si bëri français bi moo koy doxal mais nag nu ñu dimbale encore bëgg nguur gi ñu dimbalañu si muy école élémentaire fii si làmb ji Medina Mbab 1 donte nag gox bi cosaan la waaye terewul njàng ma sooxe na fa lool tax délégué de quartier bi nag fekk si ndaw ni ci seen i bëgg-bëgg muy am ab lekkool bu mucc ayib ca seen ab gox yokku ci ne bu fekkee ni kilifa yi pare nañu dina antu ndax kayit yëpp a ngi fa tege te jaax na yoon Khalifa Thiam ma mooy délégué de quartier Medina Mbab 1 ak Cheikh Tidiane Diagne. Medina Mbab 1 juróomi suul la. Medina Santar. Tabangoy Gannaaw Raay. Fass 1. Medina Matar. lotissement Fass Tivaouane 2. yooyu xam ne cosaan la bu jaboote la bu am njaboot léegi mag ñi ak xale yi xam nañ luñ bëgg ci loo xam ne lii ñëpp ko bokk muy njàng mi te école léegi dafay xaw a te lii génn di jàngi jalañ dafa bëri dafa sori lii génn di dem jangaam tabangoy dafa bëri lii bàyyi ko fii janga di dem école sëñ alisi Cissé Sam dafa sori mi dina bàyyi fees na kenn xajutu ñu dem nag ba léegi ñun benn école la ak benn CM e bu ndaw ñu bëgg nag école boo xam ne bi la la ñuy sàkku nag place boo xam ne bii dañ fay def école boo xam ne bu rëy la bu école Médina Baba lii de xale yaa ngi koy sàkku mag ñaa ngi koy sàkku a mag laa te njiit laa ci dëkk bi ñoom tawat nañ ko ñu am taxawaayu wut place mag la ñi di ko jaay ñu fexe nuñ ci jotee def ta école boo xam ne Médina Baba loolu li nga xam ne mooy suñ bëgg-bëgg mag ñi d'accord nañ ci ndaw ñi d'accord nañ ci ñu màggal Médina Baba école boobu ci jamono bii ñu lijjanti ko ndaw yi taxaw ñoom école boo xam ne bu dignité la ala Medina Baba lii daal moom la mbooloom Medina Baba yépp ñëw ci man sàkku ko ndaw yi ko ñu di ko ñaan yàlla mbaa fii deseti na espace terrain nag boo xam ne bii bu war a def loolu fi mu nii amul fi ndax terrain arène bu njëkk bi boobu sëñ Mbacke Diaw moo ko lijjanti woon ba am ci kayit yu leer gouverneur signataire am préfet signataire am madame Sarr signataire am commissaire signataire am seen signataire am cadastre yéen signataire kayit yooyu yëpp sëñ Mbacke Diaw am na gouvernement bi bu ba bëgg terrain dalee devancé jël coono bi kayit yu leer na kayit yooyu yëpp nag mi ngi ci man mi ngi noonu étudiants am euh, na waaye la ñuy dund jot na nag ci euh, réew mi ngir kilifa yi yu yoo xam ne daañu ci mun tàggatu jàpp si ba mën a faj seen i soxla waaye itam seenu ko ëllëg soxna day Fatou Cissé am nañu ay diplôme te amuñu liggéey le fait que nit ñi bëri moo tax chômage am est-ce la wala est leneen la chômage bëri ay définition dafa am ñi nga xam ne dañuy defee ne ku rek rek te amoo liggéey rek yow chômeur nga dafa am ñi nga xam ne tamit pour ñoom chômage bu dee dañ ko jël ci sens bi nga xam mooy nii nit nga xam am na xam-xam waxuma la njàng tubaab rek nit nga xam jàng na te am na xam-xam te xam-xam boobu xamul place bi nga xam dina ko mën a appliqué wu ca la ko mën a jur nag di cause bari na bokk na ci jàng ba noppi te doo am liggéey waaye problème bi dëgg mooy ñàkk saytoog xalaat jëm ci filière yu ndongo yi di jàng ak filière yooyu fa ñu leen nar bu ñu ca noppee yi nga xam ne mooy politiciens yi ñooy xool ndax est-ce que xale yi tey lu ñuy jàng est-ce que loolu mën na leen may liggéey suba est-ce que dinañu am liggéey ci domaine bi ñuy nekk di jàng tey moo tax am na ku ma laaj yoon sànq sax dafa ne ndax est-ce que du ñu géem a réformer li ñuy jàngal mooy nii cest lu ñuy jox xale yi comme xam-xam est-ce que du ñu xool ndax est-ce que loolu la soxla suba wala gënaaw suba. loolu nag Sénégal am na ay jéego yu mu ca def donte ni euh, bi dañ koy def donc dañuy xool ndax lu société bi soxla ñu xool tamit est que suba lu ñuy gën a soxla loolu moo tax bu ñuy teg lu ñuy jàngal xale mais dañuy xool loolu doog a def lu ñuy wax maquette de formation donc formation yi pour xale yow lu ñu jàng tey ñu mun ko appliquer tey mun ko appliquer suba bëgg naa suba loolu mooy suñu liggéey tamit ñun jàngalekat yi. Souleymane Gomis enseignant chercheur la ca département sociologie bu kadd moom nag mooy secrétaire exécutif bu mouvement citoyen kaddu yi la ma ko doon béral ca Ndakaaru ci ab séminaire intergénérationnel boo xam ne ñi ngi ko doon amal ca université Cheikh Anta Diop gannaaw ak lëngoog fondation allemande Koundrat àdduna wër. jaajëfal lu bari bari soxna Ndeye Fatou Cissé délégation générale à l' entrepreneuriat rapide ñoom nag delluwaat nañu ca Kaffrine ngir xool la askan wi jot liggéey ci koppar ya ñu leen lebaloon waaye itam fayeeku leen ñu am nag ñu ca fay ñu leen di jaajëfal ñu fayegul nag gornoor yëkkati na kàddu di leen ñaax ngir ñu dem fay Mohamed Wilane. juróom ñaar téeméeri million ak juróom fukk ak juróom ñeent moom la délégation de l' entrepreneuriat rapide DER bu Kaffrine at bu ñu jotal liggéey ak population bi delsi nañ ne mekku yile boor fu ñu toll Pape Amadou Sarr moom mooy ministre délégué jiite woon ndaje mi ci Kaffrine. ñu ngi rafetlu enveloppe bi nga xamante ne jagleel nañ ko région Kaffrine bi nga xamante ne absorbé nañ ko 123 pour cent lu toll 759 millions loolu bu weesoo mën nañu wax tamit taux de remboursement yi bu région Kaffrine toll 71 pour cent ndaxte 29 pour cent rek ñoo nekk ci en situation d'impayé et ñu ngi ñaax ñi nga xamante ne fay gu ñëw fay ñi ñëw waxtaan ak ñun pour ñu xool ñu leen di wutal ay solution pour dafay rééchelonner dette ñoo xamante ne nag fay ñu comme ni ñu ko waxee fu ñu dem boole suñu service de recouvrement ak contentieux et puis 4 pays juróom-ñaar fukki ak benn fay nañu gouverneur bu Kaffrine Awa Ndiaye Diop di xamle bëgg-bëgg moo doon mu yàgg ci 90 pour cent yu ñu fixé loon. mënuñu wax bànneex à 100 parce que li ñu doon gën a neex mooy au moins ñu am un taux de xamante ne ni moom la DER fixé comme objectif pour toutes les régions waaye nag jéego la bu mag boo xamante ne nii bénéficiaires yi def nañ ko il faut le reconnaître di leen gën a ñaax rek pour ñu gën a góorgóorlu parce que atte boor fay. ndaw ñi di gën a tàllal seen loxo délégation de l' entrepreneuriat rapide yokk enveloppe am ci Kaffrine ginnaaw boo xam ne askan wi li ñu doon séentu ci ñu ñàkk a fay mujj fi am délégation bi di xamal ñi nga xam ne fayaguñ seen i boor ne ay sanction mu ngi leen di xaar bu fekkee fay ñu fii ak njeextalu mois de novembre Kaffrine Mouhamed yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 mbiru tàggat yaram sooxe na lool ci yenn dëkk yi bokkee ci commune bu Ndiaffate bi ci gën a fës nag mooy dëkk bii di Waladeex ndax yenn ci ay terrain dañu ko soppi def ko ay tool yi dañoo yàqu tax rek ndaw ñi yëkkati seen kàddu di ko woo moom meex bu Ndiaffate ñi ko xam ne ci seen assemblée général ba ñu fa doon amal Patika moo àddu ci seen tour ci micro Noa bi yaay. fii difficilement lañ dundee wàllu sport terrain yu bëri yi fa newoon population bi jël nañ ko di ko def ay tool léegi terrain yu bëri tamit clôturé wuñ leen manque de moyens ay bal sécurité bi surtout.

dëkkee ci dëkk bi di yi ñoom daloon nañu seen maternité ba ci ndimbalal maire bu Ziguinchor mu dugal ci nag lu toll ci ñaar fukki millions ci sunu ay koppar te ba noppi nag di ah, séentu ay jumtukaay yu mucc ayib askan wa bég lool jël maternité ba daal di koy duppee way juróom mu jigéen moom monsieur le maire Abdoulaye Baldé mu ngi ci micro Mohamed Sagna. bés bi tey mooy bés bu am solo ci ñun mais aussi bés bu am solo ci population Bandikak yi parce que 2015 laa fi ñëwoon ànd ci benn délégation waroon dem sa Kafountine ñu débuté ma ñëw woon a seen maternité daanaka lu ce qui faisait de maternité ay zinc lañ jëloon clôturé ko en tout cas sama bu baax a baax ma ne leen bu soobee yàlla dinaa def lu ma mën pour que ma tabaxal leen benn maternité donc depuis 2015 dañu commencé processus bi 2016 ñu commencé tabax yi c'est vrai que jël na jégalu ci population yi mais je pense que lu jot yomb donc yàlla def na ñu ñëw inauguré maternité bi te li ñu si duggoon ci xaalis parce que jege na vingt millions ma def ko ci sama bopp mais aussi amay xarit jàppale ma si ba ñu jekkali tabax bi aussi am équipement en partie mais dinañ continuer di def équipement bi parce que premier adjoint maire bàkki dama la jógee Finlande ñooñu may nañu ay matériel dinañ c'est vrai matériel boobu yëpp mënu fi xeej mais dinañ fi indi une partie mais aussi suñu mbokk waa Évreux yi aussi yónnee nañu beneen conteneur boo xam ne mi Touba boobu aussi dinañ am ay yoo xam ne dinañ leen ko jëbal pour que ñu mën a équiper maternité bi rax ci dolli ci seen baax ci seen aussi reconnaissance chef de village bi ak population yëpp ne décidé que dañuy jox maternité turu sama yaay nga xam ne gën na àdduna donc moo tax ma ànd ak sama rak ànd ak sama mbokk yëpp ñu ñëw sargal population yi gërëm leen ci loo xam ne moom lañ xalaat bu rafet boo xam ne am nañ ko pour tuddee maternité bi sama sunu yaay donc di ñaan yàlla am nañ ko yàlla barkeel ko ko def pour que maternité bii mu doon maternité bu mucc ayib mais aussi matériel bépp moom moo war ci maternité dinañ fexe pour que matériel boobu ñu ko jëbal dañuy dellusiwaat fii ci Kaolack dem seeti keneen ko askanam di gërëm di Mouhamed Nazir Cissé commune Diagane Barka bi yëpp gërëm nañ ko ci liggéey bu rafet bu mu leen defal jëm ci wàllu koom soxal ay tool ngir suqali ñaar fukki dëkk ak ñett ya wër commune ba Mouhamed Touré ci micro bi yaay mosuñu am bonne volonté bu mel ni Mouhamed médecin lañ fi xamoon moom nag am développement la faw ñu comprendre ne initiative bi mu jël si lañ mën a jaaree commune bi am recette Diagambert amul marché boo xamante dañ fay dagg juuti tey d' euh, tool yi yëpp mën nañoo dem dajee ji marché Diagambert jaayee ko fa ko defee ku yóbbu sa marchandise di am foo mën a espace boo mën a euh, occupé jaay ni ñuy defee nootu guy jamaa di ko fa jëlijee dem ay mbooro pourquoi pas mu mën a génne fi te tey ay machines root ndox yi doo ci sonn dèjà loolu benn ministre defaluñ ko benn maire defaluñ ñu ko beneen homme d'affaires defaluñ ñu ko Mohamed Nazir Sy moo ko def te yemalut ko dëkkam bu Diagane Ba tey lii nii ñun ñooy wéy dina kaddu sommet Mohamed Touré nekkoon ci micro Noa Biaye ña yëngu ci mbiru aada cosaan fii ci Kaolack ña ngay rafetlu tournée bu ministre Abdoulaye Diop di amal jamono ji ci biir réew mi ngir na meeku li ci dox ak li doxal cosaan terewul nag ña ngay sàkku ci moom ngir mu ko gën koo ñoŋal Abdou Karim Sadji di acteur culturel fii ci Kaolack mi ngi ci micro waa bi yaay en tant que acteur euh, culturel u Kaolack ñun dañuy rafetlu approche bu beer bi nga xam ne ministre de la culture jël na ko mooy dem euh, def tournée fekk ay acteurs yi pour partager ñoom seeni problème seeni gis-gis ak seen jafe-jafe alors loolu bu ko defee xëy na bu ko tënkee dina mën a xam bu baax euh, ban moom ministre bi mënoon na ko capitaliser te accompagner leen je crois que loolu aussi dafa am solo ci vraiment promotion culture bi au niveau Sénégal ci am solo mooy que bu dee dem na ci ñaar ñetti région rek dafa mel ni acteur yi fa ne dinañ wax acteurs culturels parce que problème bi boo dem ci région yi même chose la quoi donc ñu koy vraiment ñaanal te li mu sumb ne mu yeggali kook sakom dëgg na yàlla acteurs yi mun cee gis seen bopp xabaar xabaaru biti réew yi dañuy ànd ak moom soxna Ngoné Ndiaye ren wër àddina na fan lañ koy dooree. ndey xadi xabaar yi biti réew yi nag gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi dama koy dooree ca Mali foofee nag dialogue national ba ñu oote woon ngir nag bennoo mën a am ca ko politique ba ba jamono ji rek antoogul ne naam nag ngornement ba woote woon na rek ne lépp loo xam ne rek ñoom parti politique yi sàkk nañu ko mën nañu ko waxtaanee mënees na ci ay bokk wàllum gouvernance di wàllum doxalin wàllum kaaraange ak i tamit sax ay projet yoo xam ne tëgg nanu ko jëmale ci wàllum lay taayu ndey ji réew ma di constitution constitution ba waaye nag lu ni mel taxul benn yoon daal ku jég politique ga ñoom d'accord ci wala ñu ànd ca googule toogaay yi waxtaan waxtaan yooyu lee nga xam ne sax door nañu kalteene gi weesu bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar nag la ëpp ca ku jég ga dañoo bank seeni yoxo gàntal yooyu lee ndaje ndax daal ñoom la ñu yëkkati ci ay kaddu mooy ne nag loolee ñu wootee lépp la rek ba mu des ak ak toogaayu diisoo ak waxtaan ak sottantey xalaat ndax nag dañoo jàpp ne ñoom gouvernement ga dañoo daas seeni mbir a fanaanal xabaar yi bitim réew ku jéega jàpp ne tamit daas fanaanal am na mooy rek ku jéega fare ca Bénin foofee nag gannaaw président ba di Patrice Talon gannaaw ba mu ootee tamit ab dialogue politique gu soxaloon nag juróom-ñeenti parti fare foofule li ëpp nag ci parti yooyu li mu mel ni ki nag ba jamono jile déggoo amagul rek ci toogaay waxtaan googee nga xam ne ma nga ko oote nag ci ñetti fan yoo xam ne yi tamit day teglantoo wax ko door nag fukki fan ci weex wi ñu nekk waaye bile dialogue moom day utee ak bi ñu weesu ndax nag moom jiitu réew mooy ne biilee dialogue ñoom parti politique yi dañuy tënku rek ci charte yu yees yee ñu tëral ngir mouvement politique ya fekk baax foofu lee yi bitim réew. ba tey ca jamono jooju joojule wala ca waxtu woowu woowule ku jekk politique ga fare ca Guinée ñoom naka ña ngay oote génn ko ñaxtu ci lànk bandaare jëmale ca ñetteel ab mandat ba ñu jàpp ne nag moom Alpha Condé moom lay jéem a njuuj njaaj maanaam daal moom lay yeeru foofee nag responsable ya faree ca kujje ca ëpp te bokk ci Front National pour la Défense de la Constitution di FNDC ñoom sax altine gi weesu amal nañu ci ab toogaayu waxtaan eh, ci rek nees mën a def nag ba samp loo xam ne itamit rek daanu wane seen ko bopp ci ab mbedd mi eh, ci pàttali nag ñoom ku jeg foofu foofulee ba njiitu réew ma yëkkatee kàddu ya soxaloon daal ba njiitu réew ma waxee askan wi nee nañu bàyyi xel ci ab référendum ak ci lu soxal ay jongante yoo xam ne moo leen mën a may ñu tabb nag seen dupp tey ba tey jilee ñoom nag ku jég politique ga nelawatuñu ba yandoor ba tax na nag jamono ji ñu ngay bëgg a mànkoo rek defub say ngir nag gàntal jëf ju ni mel. xabaar yi bitim xabaar yi euh, biti réew yi nday xadi ca république démocratique du Congo foofee nag njiitu réew ma di Félix Tshisekedi moom itamit ci nay kàddu di biral ne lépp loo xam ne rek matukaay laa ki xalaat ak ki jumtukaay daañu ko biral daanu ko ak samp taxawal ko ngir jàmm ak ak dal dellusiwaat ca bët penku réew ma ba tax na nag moom jiitu réew moomulee ma ngay wax ne sax donte ne day jaar sax mu teg ca bakkanam dana ko def lépp rek ngir jàmm ak ak dal mën a gane siwaat seenu ko réew moomulee lii moo gënoon a fës tey jëlee ci xabaax yi ah, biti réew yi mbokk yi jàngeen jëfat yi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 bés bi ñu war a amalee boobu jogante nag kenn waxagu ko rugby la ñuy waxtaanee sélectionneur équipe nationale ci wàllu jigéen ñi rugby A7 bu Sénégal daal dina fësal démb liste boo xamante ni fukk joueuse ak ñaar ñoo si nekk ñu fas yéene défendre lii di couleur nationale ci édition 2019 Women's Sevens bi nga xamante ni jàpp nañu ko fukki fan ak ñaar ba fukki fan ak ñett ci weeru octobre foofa ca Jamel ca biir Tunisie équipe bi nga xamante ni nag moo gàddu tournoi bi moo fas yéene qualifié ca Jeux olympiques football ci wàllum jigéen ñi Jeux olympiques été 2020 tournoi bi nga xamante ni nag moo dajale jigéen ñi nag des na ko amal ci juróom-ñaari stade ci juróom benn dëkk foofu ci biir Japon ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sulet ba juróom-ñaari fan ci weeru août zone Afrique nag bu dee lu ko soxal Côte d'Ivoire moom dafa bett dem Nigéria daal di koy éliminer Cameroun tamit daal di nay am ticket ngir jam ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu wërngal bi Cameroun ak Côte d'Ivoire ñoo fas yéene daje Kenya moom it am na ticket ginnaaw bi mu amee ndam ci kanamu Ghana benn bal ci dara ñu waxtaanee wàllum football CAN 2021 tour préliminaire éliminatoire CAN bi nag soxal na juróom-ñetti sélection africaine yi nga xamante ni seen classement baaxul dara ci wàllu FIFA ñeenti dëkk nag ñoo fas yéene génn daal di fekk yi nga xamante ñoom ñooy bokk ci phase de groupe bi loolu nag dina door tey jii ci diggante Libéria ak Tchad Soudan bu Sud di laale ak Seychelles Maurice di laale ak Sao Tomé Djibouti di laale ak réewum Gambie jongante xaritoo tey jii ci ngoon bu juróom benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom Allemagne mooy laale ak Argentine Cup of Nations njiitu CAF nag di Ahmad Ahmad ak secrétaire général bu FIFA di Fatma Samoura ñoom nag daañu ñëw teewee assemblée générale bu zone ouest à samedi gi bu ci jógee nag daañu dem foofu ca Thiès ngir seetaan final tournoi édition bu IFOA bi nga xamante ki ko xamle moom mooy njiitu fédération sénégalaise bu football di maître Augustin Senghor bu njëkk bi Ghana moom dafa tëcc tëcc yu metti waa Côte d'Ivoire ñetti bal ci dara tey jii ci ngoon nag bu juróom-ñetti waxtu jotee ca stade Lat Dior ba ak Mali ñu del siwaat fii ci Kaolack ngir waxtaane wàllumu nawetaan doore ko ci carré bi ak zone 2 démb Barada dafa am ndam ci kanamu Renaissance benn bal ci dara ndam demul ndam dikkul ci diggante Dantal ak mbooloo mi ci junior senior Renaissance am ndam ci kanamu mbooloo mi benn bal ci dara tey ji ci ngoon nag zone 2 ba léegi moo aaye bu juróom-ñaari waxtu jotee Barada moo laaleek Dantal Marine di laaleek ak penc ci junior senior ndey xat yi yi yéenekaay yi L'Obs, Pop, L'As, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le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 route ca aéroport Blaise Diagne l'évidence yéene kaay ñu ko xamal avion bu réewum Éthiopie 767 300 Mali la doon dem waaye xaw tuuti la mbay ñaaw a yaaw seetal avion bi daal naka la tàmbalee naaw rek jafe-jafe ya tàmbali naka la jógee motoru ndeyjoor ba tàkk avion ba mujj tourné waat wàcc daar daar far force ñu ko doon fay daanu tàkk vox populi moo ñu ko xamal l'évidence yéene kaay ne avion boobu ñuy wax Boeing 700 nangam bu Ethiopian Airlines fi mu toll ni wóor a tudde àdduna bi ñu bëri dañoo bañ na fa ñuy porte plainte l'observateur moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Sud Quotidien mooy avocat yu layel Sonko fa ñoo bëggoon a jene ak taskatu xibaar yi ni démbu seen kilifa bâtonnier bi na leen xalaa ma ndir bàjjo xalaa xalaa du ko fi conférence de presse doy na les éco yéen kaay na fale na fereme arrête turbine yéen a kaay ne waaye warta bett kenn ndax bi fi maître El Hadji génnee ab vidéo dal ci kaw Sonko wax ci mbiru 94 milliards yi ci la batoñu bi waxoon ne avocat yi léegi li ñu seetlu Sénégal mooy li ñuy wax ci rajo ak télé yi fa bëri nañ def seen liggéey te téye seen làmmiñ ab procès danañ ko gañee ci ay média ratatat ju amul ab nee na loolu dañ ciy jël ay dogal avocat bu ci bañ ñu rëq sa ndigg teg la ay daan maître Ousseynou Fall kenn ci avocat yi Ousmane Sonko yi ne waaye hee def leen ndànk de gis nga ñun duñ seetaan kenn di néewal doole aar gi ñuy aar Ousmane Sonko nay leer lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne lu ëpp ñaari at Ousmane Sonko mi ngi tuumal Mamour Diallo ne fa kees 94 milliards sàcc alalu askan wi ba tax tey direct info na damay laajte ngir yàlla lan moo tax Mamour Diallo du porte plainte Ousmane Sonko tuumal nga ma lu ma defut naa la yóbbu ci yoon waaye boobu ba mi ngi na tekk di génne ay vidéo jox maître Adjouf mu nekk fi di wax loolu fa ko setal Ousmane Sonko it ba léegi génnewul benn firnde bu leer sénégalais dañoo bëgg a xam dëgg gi lépp leer Dakar Times na ko li nga waxee dëgg te gis nga coow li Mamour jàllo moo ci gën a loru moom ñàkk na ci liggéeyam bu yàq nañ deram wala boog gàkkal nañ ko jabaram ay doomam fuñ génn ñu leen di xoolee bët boobu kon kay ki ci loru dëgg mooy Mamour Diallo waaye du Ousmane Sonko mi nga xam ne mi ngi tàmbali di yuuxu naan fañ ko bëgg a jàpp tëj wane ne moom daal dañ ko ci bëgg a lor honorable député Adji Mbergane Kanouté ca Kaolack ndangaan mel ni ku naan leen hey Ousmane ko bu mu ñu foxantoo yëramtu yeeg dañ koy sot ak bëgg koo lor ak yi muy wax ne waxu caaxaan-caaxaan la ndax moom lu ji njaaga mooy njaag mooy ki taxal safara si kon su demee ko xam ne moo ko sooke kàddoom yaa ngi ni ku naan dara xewagu te moonte assemblée dara du ta soppeeku nag coow le fi ne rek de faneen fu coow amoon diggante Wade ak Macky te léegi lépp jeex na juboo nañ président yi nga xam ne nag dox nañ ci tànk jàmm bokk na ci Alassane Ouattara ak Denis Sassou Nguesso source ay yéen a kaay ñu ko xamal turbine na leen ma xamal leen secret ay dil yu am diggante Macky ak Wade ci seen juboo gi l'observateur na ko Macky ba léegi mi ngi mer ci rakam ji Aliou Sall bi ñu tuumal wàllu pétrole beek la ko ca naqari sax yeggee na ko waa BP ku naan ko njiitre Macky Sall yow ndax sa moo def lu na weñ deux cent cinquante mille dollars la lekk ci alalu askan wi jaare ko ci pétrole beeg fa ko encaissé léegi nag boo naree mer loo xam ne dëgg la ngay sonn rek de ay xibaar yu garaaw la baaba ay dara wax ci Aliou Sall l'exclusif yéen a kaay yeggee ñu ko la mu ñu yeggee moom wal fajar yéen a mooy ne Lamine Diack kay presque nangu na na doom ji daal jubut def na ay luubal la mu ñu xamal moom l'évidence yéen a mooy ne hôpital bu wuroo soogi xamuñu deret ña feebar seen bakk ponk terroriste bu bokk ca bokk xaraam moom la waa digi teg loxo jàppe fii Sénégal libération moo ñu ko xamal nee nañu sax terroriste bi dëkkoon na Kaolack ndangaan ak Tamba amba en arrière Sénégal jongante xaritoo football Sadio Mané ne Brésil a baax si ñun ngir ñu mën a natt suñ bopp stade yéen a na ko yow de moom natt nga sa bopp ndax bi nga wàccee avion Singapour dëkk bi yëpp riit ci aéroport ba topp Sadio Mané Sadio Mané suba ci alxames ji bu a kaay jox mi bokk ko nañ football lu neex te rafet waaye waxal sa gars yi buñ ma gaañ de dóor leen ko dàll bam naaw le soleil yéene kaay moom di ñu xamal ne site internet yi ci Sénégal fi mu toll ni fa bëri ba jéggi dayoo ñetti téeméer ñoo fi am bët bu set ak bu bees li ci garaaw nag mooy site internet yooyu di joxe xibaar yi amul règlement ngay xëy rek tijji moo tax loo ci gis bind lu du dëgg ci internet bi lu rek fi bëri di ba tax nguurug Sénégal yëkkati na yet wa nag fas yéene rëq ndigg ngir teg ordre presse en ligne bi ci internet bi ndax am na ci ñoo xam ne fa ñuy fontu li ñuy def du journalisme xamul gëstu xibaar bind lu la neex te dara du ca dëgg waa ma ne gëstu xibaar bindu lu la leer mooy bàkk journaliste waaye bëgg ay vie yu bëri ba yow lu la neex wa wane ma sàcc wax leen am na site internet bu rajo Alfayda lancé du situ caaxaan-caaxaan de mbooleem lu ya xam ca rajo ba boo demee fekk ko fa ay vidéo xibaar yu bees Kaolack ba Sénégal na yenn site internet yi da jàqal naa leen moo wax leen situ Alfayda bi nu mu tudd 3w point rajo Alfayda point net Kër Adel Pambocéphale lëkkaloog sédiment ñoo leen di jaay ay ginaar yu baax a baax ay neen ay poussin aliment volaille ak bi paas bu baax bi la leen wax ak seen place nekk ci biir Kaolack nangaan téléphone 77 322 52 18 ñoo leen may li ci yéene kaay yi xabaaru faydu bi faydu bi xabaaru faydu bi dañ koy dalal moom soxna Ngoone Njaay reen mu dikk ak ñun ci journalu laylatul katmiya ñeel wàccaayu guddik cheikh allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokk yi ñu ànd dalaat jàmm ci seen juróom ñaareel bi yoon jotaay bu soxal waajal laylatul katmiya li qudumi li kaani fi ijmaa woon naa leen jotaayu kat mi ga ñuy amalee ca kër Thierno Hassane dem am na jagle waaye tamit am na ku ñu ko jagleel di maam Abdou Niang borom alfu salaati mooy kan ak lan moo wundu tànneefam ga Cheikh Abdoul Baaxi Hassane dem jokkoo ci ak Cheikh tijan Sarr ren nag comme at bu jot dinañ daan tànn kenn ci kilifay tarixa bi surtout kilifay faydu bi jagleel ko bés bii ni tuddee ko ko waaye taasu ci barkeem waaye ba léegi tamit gën a fësal ko ci ndaw yi ñu gën koo xam ndax dañoo soxla ay repère ren tànn neen maam Abdou Niang radiallahu anhu xalifa moolana cheikh ma cheikh ramis radiallahu anhu mi nga xam ne Baye wax na ne mooy gën ji àndandoor di gën ji taalibe waaye tamit di gën ji gor léegi da ci man maam Abdou Niang moomu nga xam ne tey ci faydatu tijaaniya ki ci naan moom la ndax njëkk bàyyi di oote faydu bi àgg na ci yàlla tabaraka wa taala moom ak maam Cheikhou Faye loolu mooy li nga xam ne moo sax muy kilifa gu mag a mag a mag a mag a mag ci tariqa bi ak ci faydatu tijaniya ñëpp xam ko muy borom alfu salaati di doomi maam Amady Bukaar ñang radiallahu anhu ca tey ba ñangeen nga xam ne xalifaay maam alaji Abdoulaye Niass la woon radiallahu anhu ñu tuddee ko ko ngir liggéey gi nga xam ne liggéey na ko ci tariqa bi liggéey bi nga xam ne tamit liggéey na ko dégg nga ci bi waaye ba léegi tamit ak lim liggéey ci diine bi ak lim liggéey ci xam-xam mu defar ñu bëree bëri bëri bëri bëri ñoo xam ne ba léegi ñooñu ñu ngi defare moom maam Abdou Niang buñ ko tuddee bés boobu noonu tuddee nañ ko Taïba Niassène lépp ngir nag kóllëre yi nga xam ne yàlla doxal na ko nag suñu diggante ak Taïba Niassène mi ngi noonu muy kóllëre gu yàgg ci seen ko digganteeg Taïba Niassène doyoon na loolee rek nekk lay taaral guddi ga waaye nag bu ñu sukkandikoo ci oustaz Alioune Badara Ndaw di mu xaddamu Thierno Hassane Dème ma nga ñuy dig ne bu keroogee lépp lu lëntoon jaam yàlla yi ci mbiram wasiila daanu ko fa leexal oustaz Alioune Badara Ndaw waxtaan na ak Cheikh Tidiane Sarr alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayidina muhammadin man buisa rahmatan lil alamin ñi ngi ziare ziaratul istimdaad ci ki nga xam ne mooy baabul xadarati wa cheykhuha alxalifa Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim di nuyu di ziare limaamul akbar Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé di ziare xadara bi yëpp di yëgle nag bés boo xam ne bisu Seydi Mawlaaya Cheikh Hasan Dem radiallahu anhu muy bés boo xam ne bisu Cheikh Ibrahima la bisu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane la waaye bisu yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam bés la bu ñuy sant di fàttaliku xéewal gu mag gu yàlla mayoon ab jaamam bés bi nag toujours bisu xam-xam lay doon ci suba gi ba fajaram ren nag laaye ji tànn na nga xam ne ci la incha allahu taala jotaay bi di tënku mooy qawluhu taala yaa ayyuha alladina amanu ttaqullaha wabtaqu ilayhi alwasilata danañ jàngale insha allahu taala ca bés ba alwasila ay borom xam-xam danañ siq ak ñun laaye ji jàngal ñu ci loo xam ne danañ xam lan mooy wasila ndax war nañ ko mën a utam war nit war na mën a doylu walis ko ak kan mooy wasila ak lan lay jëriñ incha allahu taala bu ñu àggee ba ci bés ba dina leer ca wàllum leeral la ñuy des nag dem ca diiwaanu leeru na ñeseen foofee nag jiitee waañ wa di Mouhamed Sakho ne atam ren jilee bernde dina am ba des ndax lépp luy matukaay rek jël nañ ko ca ba mën a teral gan ña ay kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ko taata gëm naa ni ren sax ci lay gën yemb ndax lan laax yi ni ko doon defee ñu jël ko togg ko ba mu yemb ñu jagleel ko gan yi ak ñi nga xamante ni ñooy jàngkatu kaamil yi nga xamante ni ñoo ñëw ci jàkka ji dinañ ko defar comme ni mu waree ndaxte mësta manqué benn yoon eh, ñu koy defar muy aw yoon kon yoon woowu noonu ñu doon aw di ko defar muy jaar yoon dinañ ci jaaraat yokk ci tuuti ndaxte at bu nekk dina am loo gis loo xamante ni soo ko yokkee ci beneen at bi mu gën a jat dinañ ko jagal kon ba mu jat comme nga xamante ni ñun guddi cheikh gi suñ guddi seex la lépp foofu suñ jógee foofu noonu dugg ci wàllu añi comme ni ko sama mbokk yi doon kii rek man maa nekk ci restauration bi dinañ dem ndugg ndugg yi ndugg ba mu mat ba yemb dinañ jënd gàtt yi dinañ jënd ganaar yi dinañ jënd nag yi tamit ba ci gëléem loolu yëpp dina am incha allah bu ko defee ñu jël ko ngir lan berndeel gan yi nga xamante ni ñoom ñoo dikkee fu nekk suñ leen berndelee ba nga xamante ni ñoom lekk nañ naan nañ bu boobaa koo wax toogal ci tànt bi fanaan dina ci nangoo fanaan wàllu woowu noonu dinañ ci dox ba mat sëkk ba nga xamante balaa ñu lay wax sax kaay toogal ñu ci tànt bi nga ñëw feesal ko foofu moom gëm naa ni du am benn problème incha allah. Mouhamed euh, Kisma ña dul am benn yoon nag problème ca waxtu wowulee mooy dawalkatu Jakarta ya faree ca lew nañu seen ne barkeeb guddi ga dem na ba yegg ca seen ak poos ñu cay suukar seenu ko café Mouhamadou Moustapha Ndiaye ak Cheikh Tidiane Ndiaye. waaw ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax ndax guddi Cheikh Niass moo koy organiser fii ci buntu Zawiya Maalaaji Abdoulaye Niass bi nekkatul xew-xew boo xamante ne xew-xew bu ndaw la ku nekk daf daje ay taalibe dañuy jóge fu nekk di ñëw di barkelu ci guddi gi di ziyaare wante at seen sëriñ loolu nag su amee ci benn koñ bu mel ni Léona Niassène dafay dundal transport ñun dañ ciy gis suñu bopp ci dem beeg dikk bi ndax euh, wax dëgg yàlla loo doon wàccee su guddi cheikh ñëwee di nga wàccee lu ko ëpp fuuf donc loolu sant yàll la guddi cheikh gi moom wax dëgg yàlla dafay dox bu baax a ba ci Kaolack nga xamante ni dëkk Baye Modou Niass la moo fa nekk di fa liggéeyal Baye Niass liggéey bu am solo ñoom ñëpp dañuy dajaloo ñëw fii ci kër sëriñ bi donc su ko defee transport bi dafay dox loolu nag sant yàlla la beneen yoon ndax moo Modou Niass su fekkente ne nekk na fii lew na nañu seen di fi liggéey liggéey bu mel noonu di fi dajale mbooloo mu mel noonu dafay wone ni liñ koy wooyee ñun nga xamante ni ay doomam lañ ay jarbaatam lañ liñ koy faral di wooyee rek mooy dëgg dafa nekk koo xamante ni mooy grand marabout si ñun parce que ñun xeebaluñu dara suñu xewlee lu baax moom la suñu xewlee naqar moom la ñuy gis welo yi génnee ba jeex yeneen welo yi nga xamante ne dañ fiy jaar sax dañ ciy gis moom la loolu dañ ciy sant yàlla te suñ mi ko initié ñëw teg ko fii ñu ciy barkelu ci guddi gi di ci am luñ def ci suñ poos yi kooku sant yàlla la beneen yoon Mouhamadou Moustapha Ndiaye sant yàlla beneen yoon te di leen dig daje foofee nag la ñuy yëkkatee jotaayu xabaar sant leen gërëm leen jaajëfal leen mbokk yi di leen wax rek ilaa maratan uxra Kolda c'est la référence. sant la gërëm la soxna Ngoné Ndiaye ren siis bi nag dañ koy jox ki nga xam ne moom mooy Mamadou Moustapha Mbaye mu dikk ak ñun ci journalu yoonu màggal gi. bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi jërë ngeen jëf amaan mbégte loolu di ànd ak yéen ci yoonu màggal gi juróom-ñeenteel bi numéro numéro bii du weesu réunion d'évaluation bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci dëkk bu sell bi di Touba ci résidence Khadim Rassoul Cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacké sàkku ci ministre de l'Intérieur Aliou Ndiaye mu wax ak ministre bi nga xam ne moo yore wàllum assainissement ndax dëkk bi fi mu toll ni daal forum fu ne ma ngay buuc inondation yi daal sonal na askan wi di leen déglu Cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacké xibaar yi fekk na moom Aliou Ndiaye wax ne daal def kéem tolluwaay kàttanam ba benn gàllankoor du am ci màggal gi sëriñ Modou Lo Ngabou moom dikkaat ci li nga xam ni murid di war nañu ko def fexe lépp lu am jafe-jafe nu fexe ba indi ay saafara te defal ko seen bopp mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre porte-parole du khalife général des Mourides waaye président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba am na ndax ndaxte dëkk bi fépp forum fu ne ndoxu taw ma ma nga fa inondation yi ci boppam moom moo jaaxal askan wi moom nag amul benn yaakaar ci ministre de l'assainissement ba tax na kon muy sàkku ci ministre de l'intérieur mu daal di koy ñaax nu fexe ba loole nu indi ci ay lu nu déglu boo lu mu xam-xam màggal yee tolloon te màggal bu muy gën ndax at ba at leen kon ñoom nañ xam ne njuró suñ tuba kenn ko war a jëm yokk waaye waaj moom xel wu million cinq million boo ko bëggee comparer lu ko yées day daal di jëf day bari ñoo xam ne bu tuddee turu Tuubaa lu ñu fi jëf rek mu daw ko yëg te xool ñu fi nekk ndax bu fi ak kilifa gi dëkkutoon itam yaakaar kenn néew fi itam tàmbooloo dëkk fi loolu jàpp loolu dafa ànd moom moo loolu lépp loo gis nga sant ko gërëm mu màttee nga fàttali ko dafa ne xam ndax sëñ ma la ñaanee boo ma la gërëm boo ma joxul tam ma ma mënta sant ba léegi ci d'évaluation bi ministre de l'intérieur Aliou Ndiaye daal di dalal xelu sëriñ si waaye di wax ne mi ngi sàkku ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi administration bi nekk ci dig bi ñu def seen kéemtalaay kàttan ba lépp lu nu fi diggee nu indi ci ay saafara nu diglu ministre de l'intérieur. di sant ko à destination Magal mu des fukki fan pratiquement juróom-juróom ñeenti fan parce que aujourd'hui ci wàllu. avec les forces de défense et de sécurité vraiment amuñ ci benn tiitaange mais yaakaar naa disposition yi jël yëpp dina mën a permettre ñu am suñu objectif sécurité. maintenant plan de circulation bi préfet expose na ko rapidement. dañ ko commencé doxal le 13 war a yegg le 19 peut être que baax na nag ci diggante bi ñu communiqué ko je pense que c' est bien. ñu def communication avant le 13 ça nit ñi xam ci jaar bu ñuy dugg Touba quel que soit bunt buñ jaar bu ñuy génn Touba bu màggal bi jeexee incha allah amul agirun c'est vrai que bari na fi point d'intervention yi ñu war a identifier ñoom ñu def mais agirun rassuré la mais li ñuy bind na yegg balay màggal y compris traversé bi nga xam ne ñi effort soxla na ko pour mën a assurer le maillage jàpp naa ne xel mën na ci dal day tam na waa toujours suivre wax comité bi mu koy suivre pour que ñu mën a atteindre objectif bon du côté du point de vue médical je pense que disposition yi nga xam ne ñi jàmmoo yëpp jël nañ ko en charge Serigne Modulo Ngaabu moom mi nga xam ne kon moo jiite Safinatul Amaan moom yëkkat na fay kàddu del si waat ci fonkeel gi nga xam ne Serigne Muntaxa Mbàkke fonk na ko kuréel googe waaye sàkku na ci muri yi ñu fexe ba daal di takkatoo bépp jafe-jafe bu na am ci dëkk bu sell bi nu jéem ko saafara seen bopp mu déglu Serigne Modulo Ngaabu. yàlla bindee na yow xam nañ lu bari nit nag daa nga xam nag yàlla def na xam nañ lu bari mën nañ lu bari te kilifa yi jiitu dañoo waxoon ne yoon bi am na ñeent yoo xam ne mënu koo ñàkk ci jëkk mooy borom xam-xam ci topp mooy borom xel mu rafet ci topp mooy borom alal bi ci topp mooy borom doole yooyu yëpp ñu ci biir yoon bi dëkk ci mas a jóg ñu xam ne nag ñu koy góoyloo ci kanam kenn du tax ñu yërëmati ndax ku taxaw arrondissement yi vingt milliards fondation daara trente sept milliards koo koy koy lu fi kalma bi ñu tax ñu yërëm kon nañu xam ne war nañoo taxaw am position bu ñu taxawee ak mu jote ci ñu jéem a dégagé gisee boo xam ne murid yi ñoo koy dégagé bii nañu ñu ne ci assainissement bi la jëm bii ñu ne ci ndox mi la jëm bii ñu ne ci wér gi yaram bi la jëm bii ñu ne ci courant bi la jëm bu boobaa lu ñu état bi dimbale danañu doy sëkk waaye nañu xam ne kat am na ci loo xam ne lii la ñu mën a doy loo mooy li ñu defal rek nañu doy ndax li ñu bëgg dafa mel ne am nañ ko ba noppi bëgg jàppee suñu bopp am ndonga daara te ndonga daara nag des nañ jaar waaye bu jàllee des koy wees li am solo nag mooy bu xam ne ci war a def ci wàllu woowu bu ñu ko taxawee lu baree baree bari dana saafara mbokk yi lii la leen indiloon ci yoonu màggal gi mu nekkoon réunion d'évaluation muy daje bu mujj bi nga xam ne kon comité d'organisation du grand magal am na ko ministère de l'intérieur mu nekkoon kon daje bu am solo ay mbooloo yu takkoo takku fekke ko mbokk yi kon ñu leen jox leen dig daje ak jàmm yow ak soxna Ngoné Ndiaye de Mamadou Moustapha Mbaye jaajëfal leen yéen ñi nekkoon ci déglu bi ko moom mi nekkoon ci xarale gi di koddu a Seck madame Keneme ñaanal leen kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf. Le journal. Ndeye Khady Sadio. Bienvenue. Vous nous écoutez sur le